bu ñu dikkaatee euh, ci wàllu jàppale bi nga xam ne des na loolu moom dañ ci teg baaraam. jàppale bi des na ouvrier du yow kese de du yéen kese yéen tax may wax de ouvrier yi ci dëkk bi yëpp ndax ku ci nekk la muy liggéey am na ci xam-xam. fi ngay gis fii ñu ñu créé loo xam ne yow da ngay da ngay waaru. waaw waaye jàppale bi moo des lool lool lool lool te li ma ko waxee hélas ci am bu fekkoon tey ay politiciens ngeen. kan kenn waxatu ko jàppale nañ leen bu yàgg. fii ngay gis koo xam ne daanaka as politicien ndaw la jox ko oto muy muy taxawal ak moom ci mbedd yi. Hmm. loolu mooy yow tey oto day yombal sa dem sa dikk. waaw ah, nii yow ñu gëstu yéen a waroon a am autorisation. Ah. jamono bi nga xam ne Covid 19 mi ngi fi autorisation ngeen war a am yéen. Ah. yor ay seen i carte yor seen i oto ndax yéen xam-xam boobu ndax yéen li ngeen def ci Covid 19 bi jagleel ko askan bi rek dañu ci dikk xam naa image yi ñu raxasu yeeg yu mel noonu raxasu yi yu mel noonu su image yi na fi mhm. euh, na war na war na mën a dépassé fii jàppale guñ ko war a jàppale mhm. ndax it borom kër bu ndaw la xam naa ni ma koy déggee mu ne pour am ay nit ñoo xam ne da ngay toog def seen bopp dara war a lijjanti dépasse mhm. loolu vraiment ñun ñëpp xam nañ ne borom kër moom sax njaboot moom bu la boo xësee ba samp kër moom ak ak daf lay daal di jiital euh, te mënoo nekk di xamle sa njaboot di xiif wala ñuy mar sëñ Modou jàppale bi dëkk bi loo yaakaar ne tey bu ci waa dëkk bi tegoon loxo jàppaleen leen ko maanaam yéen a ngi jàppale seen bopp sax comme ni nga ko waxee léeg-léeg ngay liggéey loo xam ne da nga cee loo xam ne su matériel ba yàqoo moom day xaw a yéeme lool waaw jàppale gi de moom Euh, ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom la sëriñ bi teg suñu diggante ak ñoom ci dëkk bi. Mhm. moom la teg ci digganteem ak taalibe yi. Mhm. Euh, loolu day tàmbalee sax dañuy wax maire bi rek. Mhm. comme li El waxoon rek maire bi rek moom euh, dañ ko fay ngir population bi ngir dëkk bi. moom moo war di gëstu. dëkk bi ak doomi dëkk bi ak ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy gëstu xam-xam yoo xam ne mën naa mën naa jëriñ dëkk bi mm-hmm. moom maire bi moo war a taxaw seen ci ci ñooñ mm-hmm. ba man leen a jàppale mm-hmm. euh, loolu nag dafa mel ni dafa des dafa des lool mën naa sax Euh, jàpp ma ne jàpp ma ne sax jéego yooyu ñoom ñu ngi koy dox. Euh, jàpp ma jàpp ma loolu. Mm-hmm. ndax bu bu fekkoon ñu ngi koy dox xëy na ñu dégg ko ci ñeneen même buñ ko gisu ci suñ bopp mën koo dégg ci ñeneen mais gisuñ ko ci suñ bopp te dégguñ ko ci ñeneen moo tax kon ñu jàpp ne maire bi moom côté boobu ko ci. Mm-hmm. waaye nag waroon na cee taxaw kem kattanam li mu man am na loo xam ne état moo ko man mm-hmm. euh, état la war tamit waaye am na loo xam ne maire bi loolu moom la war. ci diggante ak population bi nga xam ne moom la moo ñoo dëkk ci son son son bi mu ne. Hmm. waaw loolu gisuñ ci benn jéego boo xam ne dox na ko ci. muy ci ñun muy ci ñeneen. bu dee ci kilifa yi nga xam ne nag hmm, ñoo ne ci dëkk bi loola moom da leen da leen di soob ci seen coobare ñu def ko ak ñor gu leen dëkk bi ñor waaye du warteef ci ñoom maanaam du warteef ci ñoom bëgg dëkk bi nag. ak bëgg sëriñ bi. Mm. ak euh, xam ne ñëpp njabootu sëriñ bi lañ ñëpp taalibe sëriñ bi lañ. Mm. ñu ñu ñu cay taxaw. Mm. loole moo leen cay dugal. waaye bu dee kilifa yi ci dëkk moom loolu di seen war warteef waaye ki mu war nag. ci dëkk bi euh, nga xam ne moo jiite maire bi. waaw bëgg nañ daal ku ñuy jàppale. taxawuñ nag di ko xaar. taxawuñ nag di xaar ku ñu jàpp loolu amul. maanaam ñi ngi def liñ tolloon ak liñ man mm-hmm. ñi ngi doxit te gëstuwuñ mm-hmm. xëy na nag euh, sëriñ bi dafa euh, dafa wax ne képp kuy sàkk mbir ci tay woo mm-hmm. bu yàggee da ca da ci gis bunt moo tax duñ tayyi duñ sonn gëstuwuñ tamit di xaar ñi ci suñ di di ci suñ ginnaaw ngir mu jàppale ñu dara suñu dabee suñu ci suñu ci dabee nag ba tey alhamdulilah waaw ñu ngi ci góorgóorlu daal moom ci suñ tam kàttan jërëjëf sëñ Modou tamit man ak sëñ Modou Mbacke mi mm-hmm. am na si yu bëri yu ñu def si comme si ginnaaw tawat bi nga xam ne dafa am si wàllu mm-hmm. raxasu loxo yooyu mm-hmm. liggéey nañ si yu am solo yoo xam ne yu am solo yoo xam ne tamit mobile la mu di jar ngay jël di branché parce que automatique la da ngay da ngay da ngay da sa loxo nii rek mu xelli. mu xelli nga nga wàcc sa loxo moom mu arrêté. ah mu arrêté waaw mais nag ñun si defar dafa doon yoo xam ne si ñun toujours à chaque fois di li ñuy liggéey. à chaque fois dañuy soxla loo xam ne si jant bi moo koy doxal. ah solaire lay doon waaw. ñun moom lépp li ñuy liggéey jant bi moo koy doxal. seen xam-xam lu ci ëpp ci loolu. waaw wala soit courant boo xam ne courant continu lay doon courant continu yooyu. yooyu man mosoon naa ko defar waaye si ay jamono 2007 2007 xaw ma yooyu laa ko defar courant boo xam ne dara du ko doxal. dara du ko moom day tourner di produire gasoil essence dara du ko doxal. Ah. waaw ni muy ni muy tourner si lay produire du courant. loolu si ay jamono yooyu laa ko laa ko defar. Mm-hmm. mais lii mu nekk loo xam ne euh, raxasu mu nekk œuvre bu am solo parce que souvent dañuy gis raxasu yoo xam ne ni koy defaree xëy na xam-xam la. Mm-hmm. waaye dafay des lu bëri bëri bëri. Euh, soo xoolee foo xam ne mbooloo lu toll ay 200 personnes war a raxasu même si diggante bi kenn ku ne di xaar sa morom di raxasu mm-hmm. loolu si dafay yàgg. Mm-hmm. am na benn système bi ñu defar boo xam ne mën ko defar si école yi nga xam ne 10 personnes mën nañoo diggante kenn ku nekk diggante bu ne mën naa nekk. Euh, xam na Sénégalais moom soo taam soo waxee rek xam xam nga fa fa ñu fa nga jëm ah, ah, ah, mais euh, dinañ ko def noo xam ne dix personnes yëpp dañ mën a raxasu mm-hmm. te te kenn ku ne doo gêner sa morom ndox mi day ñëw normal soo bëggee zel mu ñëw soo bëggee yeneen mu ñëw te yooyu yëpp mën nañ koo installer si voie si secteur yi xam ne euh, soit si côté marché yi mm-hmm. ak si jumaa yeeg si mm-hmm. jàkk yeeg mm-hmm. ak si école yeeg yooyu yëpp mën nañ ko installer yooyu nag day doon loo xam ne dañ koy programme yi nga xam ne matériel boo xam ne da nga fay ñëw exposé ko su ko defee yow li nga soxla da koy am. Hmm. yooyu yëpp bokk na si xalaat yi nga xam ne tamit dañ koo xalaat ngir euh, mën ko gën a jëmale réew mi nga xam ne réew mi ñëpp mën si mën a jot. Hmm. Euh, idée ak xalaat yi mi ngi fi waaye nag man-man bi ak. Euh, Euh, kii bi dëgg dëgg dëgg daal moo des. moo waaw moom moo des moo waral suñu liggéey mu xaw a. am euh, ak mm-hmm. Mm-hmm. retard boobu nag li ko waral mooy xëy na ñàkk ay moyens moo waral ñu mënuñu faa egg eggin boo xam ni wala xalaat yi xam ne dañ koy def te mën na xalaat pour def ko. Mm-hmm. loolu aussi bokk na si li xam moo ñu gàllankoor. sëñ Modou euh, dégg nga sëñ El Hadj fi mu daanele waaye dañu gis ne yow yaa ngi dëkkee Baxdaad sëñ El Hadj Thiam moom. Hmm, yaakaar naa ndindi ndindi la dëkk. Hmm, ginnaaw sëñ Abdou Karim. ginnaaw ndindi ginnaaw kër sëñ Abdou Karim. kër sëñ Abdou Karim kon mu xam am ngeen distance yéen ñaar. te yow yaa ngi xëy sa place. Hmm. sëñ bi mi ngi toog euh, maanaam comment dire baxdaat. Euh, baxdaat waaw xam-xam boobu nan ngeen koy weccente euh, da ngeen déggante par téléphone wala ci whatsapp ngeen koy defee wala dangeen ngeen am heure boo xam ne dangeen koy daje fenn toog waxtaane mbir mi. xam nga yow yaa ngi ne internet bi am si côté boo xam ne njëriñ la. <laughs> lépp message yi lépp ñu ngi ko jàllale si diggante internet. Hmm. ak si réseau yi. réseaux sociaux yi ak si ak ak ak si téléphonique yeeg yooyu. Mm. yooyu diggante yooyu léegi jarutuñ ñi nit di déplacé lépp loo war a. def soo ne nii nangam message bi mën nga envoyé image lii laa xalaat nga envoyé lii laa xalaat nga envoyé automatiquement dañ mën a xam hmm. lu si manqué sax dañu mën a lii as suñ si dolloon nangam asa duggan day fekk yow nga tiim sa table di liggéey tiim say pièces hmm. say recens say transitor ki yéen ak yéen hmm. su ah man de courant bi nangam comme sëñ bi am lu ma xaw a gàllankoor man sëñ bi de courant sàngam de def naa di mais courant bi dafa ëpp ah soo comme soo amee benn recens nangam wala nangam wala soit nga am sa benn euh, transistor sangam. Mm-hmm. soo ko amee dina mën a diminuer courant bi ba nga xam ne léegi loolu du lakk. Mm-hmm. kon kooku jaru muy déplacé. dëgg la dëgg la xam léegi nag soo defee objet bi ba pare. nag mm-hmm. après nga ñëw ko doog a def test bi. parce que ñun suñu liggéey li tax mu xaw a xaw a a jël temps mooy. Hmm. suñu liggéey ba pare dañ koy testé dañ koy vérifié. Ah, ah, du caaga ne da ngay liggéey rek dugal ci marché bi hmm. day koy vérifié ba wóor na leen li nga def lu wér la. Hmm. nga doog a génne nga doog a génne ñun aussi tamit noonu la ñuy gëstoo. si gëstuñ boo xamee tamit yaakaar naa ku ñëw tamit du ñu mën a corriger si benn fànn. ndax li ngay liggéey mas nga ci liggéey benn quantité maanaam lu bari loo xam ne yóbbu ko ci marché bi pour nit ñi gis seen bopp. quantité bi moom du pour nga mën koo matale du yomb ni nga ko mën a matale mooy comme man yi ma doon liggéey si àll bi laa ko doon liggéey moo ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe si wàllu courant. Oh. loolu moom si àll bi laa ko doon defee. Mm-hmm. dangay dem si benn dëkk. nga toog la toll ay cinq kër wala six kër yoo xam ne dañu soxla courant nga créé leen ay appareil dem installé leen ko seen seen seen dëkk. Ah, yooyu moom di nga ko mën a def waaye nag defar objet bi ba pare jël ko di ko jaay loolu dafay laaj xaalis. fond bu am doolee lay doon. Mm. aussi tamit da nga am atelier am am laboratoire bu mag mm. boo xam ne si fa ngay gëstu. Mm. yooyu yëpp aussi dem dafa bokk si nga xam ne dañoo manqué suñu gëstu te loolu fekk amuñu ko aussi tamit pour ñu mën a taxaw day jafe. aussi encore borom xam-xam yi nga xam dañoo nekk fii tuba ñoo xam ne tamit wax di yàlla euh, xam dama leen ne njëriñ ñun njëriñ ñuy jéggaan si benn xam-xam. ñun soxlawuñu keneen di jóge ci beneen dëkk. Hmm. di ñëw di ñu di ñu former soxlawuñu formation. <laughs> am na benn jour maa ngi gis ñu ne ñu formé woon xaw ma dañu fay xaw ma ay photographe xaw ma ay ñuy def ay montage ay kii ak yooyu sëñ ngi nii sëñ Basse est kan ma ko jàngal montage kan ma ko si studio nii. waaw kenn jàngalu ko sëñ Basse lu ñu ko xame woon. réparé télé ak ak rajo <laughs> mais mi ngi def si loo xam ne fii nii li muy def nii jàng ko. jàng ko dëgg ah kon léegi kon léegi xam-xam kon xam ban xam-xam la ñuy jéggaani ñun. amut ñun soxlawuñu ko. kon li ñuy soxla mooy matuwaay yi nga xam ne moom lañ war a am pour ñun ñu war mën a taxaw. Mm. ngir li nga xam ne moom lañu gëstu ñu mën koo teg wóor nañ ne lii lii ak lii lañ gëstu. Mm. Mm. loolu nag suñ ko amee dafay bokk si li nga xam ne tamit moo ñuy dimbale. dëgg la moom moom amaa nag di wax ne xaaral ñu indi ji ay ingénieur sàngam ñu ñëw jàngal waa dëkk bi nangam ñun soxlawuñu <laughs> ñun soxlawuñu ko wax dëgg yàlla am benn am benn secteur boo xam ne man jot naa ne xëy na mën nañ dem jëli ñit xëy na daa ko am xam mu yees mën na am mhm. ah parce que ñi ngay xalaatee noonu la kenn di xalaatee mhm. waaye man yii ma gis ne moom la ñuy formé xale yeeg nangam nangam ay sant formation nangam mhm. ñu ko fi def ñu ko mën a def ñu ngi si dëkk bi parce que am na centre formation yoo xam yoo xam ne mi ngi fii Touba ñu ko ñi ko gérer Dakar la ñuy jóge mais ñun li si xam xaaj ba xaaj xamuñu. ñoom xamuñ ko. Mm-hmm. suñ demoon si côté maintenance. Mm-hmm. suñ demoon si côté maintenance laa raw ñun suñu élèves sax mu mu mu mu leen féete kaw <laughs> kooku ban xam-xam la ñuy jàngal. moo jaaxal ñëpp tuuti. lépp bi daal xam nga ah, mais il faut il faut ñu wax maanaam maanaam ñor. ñun ñun ñun fekkee dañoo jàpp ne. Mm-hmm. ñun daara ja. ak marché ba rek seen xel moo gàtt effectivement Touba loolu lañ leen jàppee.